va dans tous les sens il il il étouffe tout il ti mais xoolal xoolal ne serait-ce que tout ce qui est xoolal nos rapports aujourd'hui avec nos institutions notamment la justice bi Macky Sall di ñëw au pouvoir gis nga am na ku ma ni le président Macky Sall pourtant il a un bilan qui est défendable pourquoi est-ce que de tous les présidents du Sénégal il paraît il, il apparaît être comme le président le moins le moins aimé le mal aimé pourquoi parce que justement bi muy ñëw au pouvoir li doon baax ci xolu sénégalais yi ñu traversé période 2011 2012 mu am ay xeex yu ci am ba mu am ay bakkan yu ci rot ñu jël ko dëj ko ne yaa ngi c'est toi le nouveau président de ce pays là li ci ëpp solo yi nga xamante ni c'est des aspirations immatérielles daf ko tegee na le c'est des aspirations yi nga xamante ni si immatériel mu bu mu am yi nga xam ne dañ bëggoon mu nekk derrière nous ad vitam aeternam ñu bañ ci ñëwati par exemple la question de la transhumance ñu ci bëri dañu foogoon ne président Macky Sall lan moo ko poussé woon par exemple à faire ce discours là bi nga xamante ni c'est pas passé mooy quand il a dit euh, les marabouts sont des citoyens ordinaires benn sénégalais rafetlu ko et après lui il mu retiré wu ci mais boo xoolee au fond dafa doon traduire un état d'esprit mais il a mal exprimé lu mu doon wax donc quand il est arrivé au pouvoir l'aspiration populaire les sénégal yi ñu bëggoon mooy jikko yi mooy c'est-à-dire réconcilier l'homme politique ak le peuple par exemple la question de la transhumance président Macky Sall il vient quelque temps après après la question de la traque des biens supposés mal acquis qui a viré à la traque à Karim wadd tout ce qui était autour sur cette liste là képp ku bugg transhumé mu indi la ci moom et il ose du du du haut de son palais s'adresser au peuple sénégalais pour dire que pour légitimer la transhumance pour dire que képp ku bugg boo nekkee fële na nga ñëw donc bàyyi leen seeni critique ku bugg nga na nga transhumé sur des questions comme ça deuxième chose suñu kilifa Abdoulaye Abdoulaye euh, Amadou Makhtar Mbow ak le poids de l'âge mais mu comprendre xam ni question réforme institution yi soxlal na sénégalais yi torop malgré son âge mu góorgóorlu ci am lu mu ci liggéey avec un groupe qu'est-ce qu'il en a fait qu'est-ce qu'il en a fait ak d'autres d'autres d'autres sur la question de des institutions budgétivores bi mu ñëwee le premier acte qu'il avait posé mooy de supprimer le Sénat mais après qu'est-ce qu'il a fait il crée le HCCT il crée xawma lan pour caser une clientèle politique Macky Sall ci yooyu la laaj alors que yooyu bokk na ci ponk yu am solo yi nga xam Macky Sall il devait être le président qui ne vient pas pour réaliser de grosses infrastructures forcément mais qui vient dans la forme de gouvernance sur nos institutions ni ñu koy tëggaatee loo les rapports entre nos institutions les rapports entre les institutions et les citoyens la perception que les citoyens ont de leurs institutions notamment la justice notamment même le président l'idée de faire en sorte que le président de la République bu ñëwee ba mu toog ci pale bi mu ne man sama casquette chef de parti dama koy tegee na le je me mets au-dessus de la mêlée et je deviens le père de la nation mais des questions comme ça ci yëpp la laajte c'est ça le problème avec Macky Sall et du coup man xam lan laa wax keroog maa ngi dem seeti waa Walfadjri may wàcc xaw ma lan lañ doon wax ba ma ne Macky Sall est vieux. Pourquoi? le président Macky Sall en fait xam nga bi ñu ko falee même les portraits que la presse internationale a de lui c'est un président né après les indépendances ki comprend les trucs yu nekk ci kiiwu jeunesse actuelle bi sur les défis sur les xawma la ak lan ñëpp noonu lañ ko peindre mais bi mu ñëwee dans sa pratique de la politique il est plus vieux que Abdoulaye Wade ni muy politiquer ko ay naxante la ay teg pion ay wure la ay teg fii te non mais oui ci loolu la ne et malheureusement donc loolu moo tax en termes de défi f quatre défi yi mu am moo gën a fort défi yu M23 amoon <laughs> parce que F24 les problèmes auxquels il fait face moo gën a complexe M23 problème yi mu doon de, de, de faire face à l'époque c'est ça la difficulté mais malgré ça encore une fois tout n'est pas parfait ce serait l'heure c'est même pas possible mais nous voilà ñu ngi ci